Euh, monsieur le maire tey mu mel ni ñu ngi la gis tey nga ñëw fii ci école 12 école bi nga xam ne macha allah jaar nga fi def nga fi def nga fi jaloore macha allah léegi tey lu waral teewaay bi tey fii ci biir école 12 bi nga dellu si nii nii tey. mais c'est-à-dire c'est simple mon cher dañuy euh, contribuer rek au développement écologique de de Djiddah Thiaroye kaw tout à fait commencé ko ci gox yi nga xam ne. Mhm. Euh, mooy école yi. Mhm. fii nga xam ne fii la ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nar a yor réew mi ëllëg. surtout fii la nekk. Mhm. donc lu ñuy def ñu commencé ko fii. waaw ñëpp jàpp ci. ñaan ci et cetera incha allah lépp dina baax. Ah, ñu gis ne ci jamono bi nit ñi ñu ngi préoccupé ci lu bëri yow yaa ngi bàyyi xel fi ne li nga xam ne mooy war a jëriñ askan bi ëllëg ndax nee garab ku ne xam na li ci ne xam na li ci alxuraan wax xam na li ci yàlla waxi tamit yow nga ñëw ci école bi nga xam ne jaar nga fi tey di fi jëmbataat ay garab yoo xamante ni macha allah waaw sans faute. Mm-hmm. ban yëg-yëg la ak ban gis-gis la tey. mais kontaan rek. Mm-hmm. garab moom ku koy jëmbat. Mm-hmm. war nga xam njariñ li ci nekk. surtout dana protéger environnement bi dana contribuer. ci ci ci ci embellir déjà li nga xam ne mooy décor bi. ba pare dana. augmenter oxygène. lu am solo ñu gis ne nag fi mu ne mi ngi taw de monsieur le maire mais yow taw bi déranger wala yaa ngi ci biir yëfi di di di jabet wala da ngay wane ni problème man béykat la doomu béykat la <laughs> ah, waaw waaw béykat la nous sommes des enfants de la banlieue. bien sûr yàgg nañ ko ñàkkante fii ci taw. wallaay muy taw ñuy fubal <laughs> <laughs> merci beaucoup monsieur le maire.

Keep working. mais monsieur le maire bii de ni ñu ko teel a def dafa rafet quoi. bi ko deful nii moom. léegi xale yi une, une maison, un arbre. Mhm. si je après en en certificat en campagne une maison un arbre. mais nga leen interroger ñu wax seen xalaat ah voilà. doyen xanaa waaw waaw allez vas-y. Ah, mon frère vraiment un grand merci ah. Mhm. te vraiment garab yi ñuy fàttali cosaan parce que amoon nañ ko fii si kër gi. mu dee quoi. Mhm. vraiment grand grand grand grand merci. naka ngeen gisee initiative bi une maison. Euh, un arbre rafet na de wax dëgg fa yàlla bu ñu ko defoon depuis. sa njëlbeen moom kër yëpp yaa ngi nañu quoi. Mhm, macha <laughs> allah vraiment merci beaucoup. merci beaucoup. <laughs> initiative bi nga gis gis tey sa sa sa doom sa jarbaat sa rakk def ko muy François Ndao. sinon ko magnifier rek. macha allah. ñu parce que vraiment il faut vraiment pour penser tout à fait. initiative bi naka nga naka nga ko gisee ni mu ko tuddee mooy une maison un arbre. waaw mhm. alhamdulilah. heureuse. parce qu'on a besoin de ça quand surtout. macha allah. <laughs> waaw tey jii bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xoolee tey jii lan nga ñu mën a wax ci à propos ci la Casa bi nga xamante ni moom ngeen moom la ñu bokk tey ñun ñëpp je ne veux pas dire que ni yéen ko moom waaye tey ñun ñëpp bokk si nañ ci macha allah. comme am ngeen activité. Mhm. ngeen boole ñu ci. Mhm. ñun tamit devant quelques membres. Mhm. une fois am activité ñun tamit impérativement il faut que ngeen ñëw. ngeen ñëw foofu. incha allah euh, euh, mu doon lu am solo en tout cas un grand merci à vous. merci à vous <laughs> le maire un mot. <laughs> waaw merci euh, initiative bi je crois que c'est bien apprécié l'objectif c'est d'avoir un arbre par famille donc une famille un arbre mhm. donc ñu ñaan yàlla am yeneen possibilité pour yeneen gox yu gën a sori yi nga mm-hmm. xam ne amuñu possibilité bi aussi ñu mën leen a planter des arbres mm-hmm. et dans les maisons et dans les écoles et même dans dans les espaces publics macha bi nga xam ne un arbre une maison un arbre mais c'est pour <laughs> contribuer au développement écologique de Djida Thiaroye c'est que souvent ñun yeneen secteurs yi la kii fàtte l'écologie c'est mm-hmm. important quoi tey ñu gis ne fi ne ñu bëri dañ daan faral di jëmbat ay garab mais ay garab yoo xamante ne amul woon benn rentabilité peut xëy ker rek la la mënoon a jural mais tey ñu gis ngay joxe ay garab yoo xamante ni de de de des donc lu waral loolu. importance bi mooy arbre fruitier comme développement écologique dafa am solo. Hmm. soo indee arbre boo xam ne ker rek lay joxe mën na ñàkk intéressé nit ñi. Hmm. mais ñëpp bëgg nañ arbre fruitier seen kër. relativement xanaa ku ko amut. Hmm. <laughs> mais ku ko mën a jot di ci di ci jéem a wut. <laughs> macha allah c'est ça. ok merci beaucoup monsieur le maire. donc euh, si jamais mën ma envoyé kii bi. waaw man ma